ngi ci jàng alquran bi la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen ni ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko. bu fekkee ne mokkal nga te àpp biñ la àppal jeexawul ni nga jàngaat uh, ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng. arab ak français ngay jang bu ñet at yoy maté ci at année ci ñettel at bi ci ngay bind kamil bu dé classé mom dañuy muur bu dé ëtt bi way bu dé bir néeg yi maam jaar bu nek dañ xol ci bir néegam nan lay nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cay taxaw ndax ndax ma ngay toppatoo lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muuru yu bare bare ci ay détails yo xamné ne ñoko ñoo sen bop seen bopp ñu taxawoon ca booba lu am njëriñ lool. ndax diggante boobu yéeg nañ ne ñun sunu sunu sunu sunu xaaj yi ba ñu daan def ci xale yi ak di leen jéem a euh, kii wàññi ko na ci ñun coono ya ku ne xam na ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da nekk sa kër di jàng muy metti asuma laak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu ñu nekk benn ba nga xam ne soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng. Euh, xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu beq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa dafa teewul fi gis nañ ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la. am na tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jàngale ñaw loxo ak ñawu machine. jàng naa fa ñaw tamit centre ñawu loxo waa léegi bi ma bi ma fa jàngee ñëw ba pare doon naa deq tamit waaye jotuma bind kaamil jóge fa. Euh, ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi. ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def euh, fukki fan ne juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daara ji yëpp ñu defar ko waaw dañu da ngeen daan gis ñoom ñëpp ñu ñu ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi raxas fépp néeg yeeg couloir yi yépp daal di nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom ñoom ni ñu ko defee nii décidé ko ngir ju delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër waajur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay ay plat yu boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gato ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp a nga fa. ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi jàngi ñaw man naa ci tuut tuut rek. lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun. dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñëwee waaye ñun du ñu ñëwee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax. Porokhane jëlee nañ fa yar jële nañ fa teggin jële nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen yeneen nit. di ñu teg tamit ci yoon ba di ba di àgg ak ñun foo xam ni day day day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee na jaare ak ñoom tamit ni ñu ma bëggee bëggee ma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxatee ak moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def si ñun la rek. Ah, ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewu ma ko woon daal. ndax yar na yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko xam nañ li li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam man di gis képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab xam-xam bala mu faa jógee alalam dina ci dem te te nag barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mukal alquran bari na te eh, nañ fi ba jëlé fi seen xam-xam ak seen diiné ci lu dul seen dërëm ci dem. war na na mëna dem ba nga xamné ne ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon togg ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar. moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay Serigne Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg mam jaaree jàngi fi alquran ba fi wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte ji yëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine bi ngir lan ñu dem ba daara ji ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd. ah di di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ah, ndax eh, lii nga xamante ne suñu borom dogal na ko ci man tey ma jël si ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét ndax sëñ eh, Safa Bassirou Mbacké li nga xamante ne def na ko ci ñun eh, dafa doonul lu ndaw. jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg euh, fu ñu toll rek ñoom ñi am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalkat yi ñoom ñu sax maam jaare am ko moo leen ko gën a ndax dañ naan maam jaare ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu mu jàngal. Euh, wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone ndax soo xoolee euh, kii. musabaqal musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daaw géej rek xale ba nga Premier ni moo jëloon première ci sama soxna maam jaar Diouf mi la bàyyi bàyyi ko moo ko dalal li tàmbalee alif ba ni xale bi moo ko lee alquran ci diirum ñetti at daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax buñ fi mokkalal mu doon lu yéeme fii laa jàngee te nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom-ñaar nit wala juróom-ñetti nit ci biir diggante boobu waa da ci gis koo xam ne fi la jàngi fi lañ ko jël ma jàngale waaye da ngay lim lim bu takku ci ñi mu ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gunge ku fi nekk da leen di forme ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na xam ne noonu lañ ko war a doxalee loolu tam ma leen ci soññ ci képp koo xam ne ci ñoom dégg nga message message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge. waaye li war mooy ñoom ñu defal boo nga xam ne lépp lu ne ci ji war nañ ko mën a fekk seen bopp ak seeni xol ma seeni bopp seen wagaani xol te taatan maam jaara waame la ko naanul yaabon bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji jaaraama maam astama fiiru naawel sa géej gu neex na sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene e, dellu fay fay ko waaye mënuñu ko bañ fi jógee tam e, ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne euh, ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam euh, ki nga defal garam bëgg la koo fay rek moom moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi. bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jigee fi tamit fàttewul daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponte ji la ko waral xëy na sax nag suñu Moustapha Bassirou Mbacké moom. duñ mën a def dara ba fay ko boroom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko. li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba ñoom ñu ngi def ay natt waaw euh, di kenn ku nekk euh, ñu am lu lay sas defe naa ñoom dinañ la ko ndax ñoo ma ko gën a maîtriser. donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii. yenn sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour ñëw ñu dajale waat ko foofa kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériels yoo xam ne seen euh, asaka yéene lañ ciy dawal